ak suñuy mbokk ñu ñuy topp ci waxtaanu fajar ngeen di si ànd ak seen mbokk Ibrahima Drame mbokk yi xam ngeen ne doomu aadama de dafa soxla saa su nekk muy am wittal ba nga xamante ne moo koy fàttalikuloo la tax yàlla bind ko ba tax na ñu fas yéene ànd ak yenn ci waxtu bi fu ngeen munti nekk ci kaw suuf ngeen di taataan waxtaan bay jaar ci béréb bi ñuy ñaan yàlla suñu borom tabaraka wa taala yan nañu yàlla boole defal dégg ak topp mbokk yi boroom xam-xam ju mag ki ñu naan xasnal basri rahimahullah dafa am lu mu baaxe xeetu sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu ne ibnu aadam innama anta ayaamun kullama zahaba yowman zahaba baaduk boroom xam-xam bi di xasanul basri rahimahullah nasiha laayee biir yamu doon laayee biir doomu aadama bi daf ko ne ibnu aadam yow doomu aadama bi innama anta ayyaamun xamal ne yow de la ngay dund ay fan la ay bés bés yi ñëw muy jàll di dem xamal ne bés yooyu ngay dund ba tax na war ngaa bàyyi xel moo tax mu ne kullama zahaba yawmun xamal ne bépp bés ba ñëw jàll zahaba baaduk lenn ci sa dund wàññeeku na ndegem ay fan ngay dund fii ci kaw suuf si ndegem bésu àddina yi ñëw di jàll bés yooyu ngay dund ba tax na boroom xam-xam bi di xasnul basri nee na kullama zahaba yawmun bépp bés ba ñëw jàll dem xamal ne zahaba baaduk lenn ci say dundu dem na bi maanaa lenn say dundu wàññeeku na ba tax na yow doomu aadama bi lii la war mooy bàyyi xel bés yooyu ñuy ñëw di jàll lan nga ci war a def bokk na ci lan nga ci war a def mooy lala yonent bi baaxe ci xadiisu abdullahi bnu umar radiallahu an jëlee nañ xadiis bi ci si saxaabi bu mag ki ñu naan abdullahi bnu umar radiallahu anhu yan na ko buur yàlla gërëm abdullahi bnu umar nee na anna rasulullahi sallallahu alayhi wasallama qaal nee na naka suñu yonent bi di ar rasulul mustapha sallallahu alayhi wasallam moo ñu ne arrahimun yarhamuhum arrahman irhamu ahlal ard yarhamukum man fi sama xadisun saxiix axrajahu albani mbokk yi yal na jàmm yàlla nekk ci yéen ak seeni njaboot xadis bañ doon jàng sànq mooy xadisu saxaabi bi ñu naan abdullahi bun umar radiallahu anhu abdullahi bun umar radiallahu anhu moo ñu baaxee nañu naka suñu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ñu baaxee ci xadis ba bëgg a ni nee na arrahimuun képp ku làmbok yërmande yar yarhamuhumur rahman aj yërmande màndekoor bu mag bi da kay yërëm teg si ne irhamu ahlal ard ngalla waaye na ngeen yërëm ñi leen féete ci suuf yar xamu yarhamukum man fi sama ñi leen féete ci kaw yërëm leen kon képp koo xamante ne yaa ngi ànd ak ñun ci jamono ji di taataan waxtaanu suba fii ci Rewmi FM 97.5 nañ leen géema làmboo xadis ba yonent bi baaxee xeet bi sallallahu alayhi wa képp ku bëgg aji yërëmande koor bu mag bi di yàlla suñu boroom tabaraka wa taala yërëm la na nga lamboo ci mbindaafoonu yàlla yi ba tax na xam ngeen ne bokk na ci borom bi tabaraka wa taala ci turam yu sell yi bokk na ci arrahman bokk na ci turu yàlla yu magi arrahim ba tax na yonent bi ne sallallahu alayhi wa sallam képp ku làmbook yërmande jëmale ko ci doomu aadama yi yarhamuhum rahmaan aji yërmande koor bu mag bi di yàlla da kay yërëm arrahimuun képp ku installé yërmande digganteem ak mboolem mbindaafoonu yàlla yi yarhamuhum rahmaan borom yërmande koor bu mag bi daka yërëm di yàlla buur bi tabaraka wa taala kon képp ko bëgg borom bi tabaraka wa taala dugal la ci kuréel ñamuy yërëm fii ci àddina ak ëllëg bés pénc gi ma la lamboo xadiisu yonente wi sallallahu alayhi te ñu di ko waxtaane fii ci réew Rewmi FM 97.5 mbokk yi yonent bi daal di jokk beneen baat baat bu jiitu mu daldi ñu baaxee ne ñu irhamu ahlal ard képp koo xamante ne ci suuf képp koo xamante ne am na li la féete ci suuf yàlla dogal nga féete loolu ci kaw yonent bi nee na nanka yërëm ndax boo ko yërëmee boo installé yërmande sa digganteeg loolee féete la ci suufu te yàlla dogal nga féete ko ci kaw yar yarhamukum man fi sama ña leen ci kaw ñoom it dinañ leen yërëm kon yow njiiti réew yow mi yàlla dënk ndombol tànk àddina yow mi yàlla dënk palaasu liggéeyukaay yow mi yàlla dënk baat ci ña nga jiite yéen ñi yàlla dogal ngeen féete nit ñi ci kaw ngelawaay na ngeen am yërmande ci ña ngeen jiite ña ngeen jiite ndegem yàlla dafa dogal ñooñu féete leen ci suuf na ngeen jiite ndegem yàlla dafa dogal ñooñu féete leen ci suuf ngeen féete leen ci kaw ngalla waaye na ngeen installé pont bu ñu naan rahim na ngeen installé pont ba ñuy tuddee yërmande seen diggante ak ña ngeen jiite moo xam jiitu réew nga installé pont bay war a jaar sa diggante ak ña nga jiite te pont bi tudd. yërmande moo xam njiiti société nga ngelawaay na nga installé pont bu ñu naan yërmande sa digganteeg say emploi moo xam jiite yaay kilifa ci kër gi yaa jiite kër gi ngelawaay nanga nga yërëm ña nga jiite ci kër gi kilifteef bala yàlla gàll sa ndodd na yërëm ña nga jiite danga nga yërëm soxna si danga nga njaboot ñi na nga yërëm liggéeykat bay liggéey ci kër gi na nga installé yërmande jëmale ko ña nga xamante ni yàlla dogal na nga jiite leen ba tax na loolu boo ko defee yonent bi sallallahu alayhi wa ne su ko defee ña leen féete ci kaw ñoom it dinañ leen yërëm ñaleen leen ci kaw nag war nañ si war a mën a déggee ne mën nañoo nekk ña nga xamante ne ñooy yàlla suñu boroom ak ay malaakaam waaye ba léegi mën nañ si déggee ne xattaa ci àddina si ngay dund képp ku la féete ci kaw ci doole ci xam-xam ci alal ak lu munte nekk fekk yaa ngi yërëm ña la féete ci suuf amaana ñi la féete ci kaw ci lépp nag mën lañ laa yërëm ndax su boobaa dangay ngay am seen yërmande ba tax na xadis bi xadis bu ñu war a bàyyi xel la yonent bi sallallahu alayhi ma yàlla yónni mu doon rahmatan lil alamin ndax loolu la ko borom bi wax ne ko wa maa arsalnaaka illaa rahmatan lil aalamin yónniwuma la yow sama ndaw lu dul nga nekk yërmande ñeel mboolem mbindaafoon yi yërmande boobu yàlla yónni yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam moo installé lii suñu diggante nee na nañ ko dundu nañ ko installé suñu diggante nañu am cofeel suñu biir nañu am yërmande suñu biir ba tax na mu ne ñu rahimun képp ku lamba ko yërmande yarhamuhumu rahman aji yërmande koor bu mag bi di yàlla da kay yërëm mu teg si ne irhamu ahlal ard na ngeen yërëm ña leen ci suuf yarhamukum man fi sama ña leen féetee ci kaw yërëm leen kon yàlla ñu yàlla may xol ba yërëm mbindaafoonu yàlla waaye yal nañu yàlla yërëm ndegem yërëm nañu ñañu féete ci suuf amin yaa rabbal alamin mbokk yi yal na jàmm yàlla nekk ci yéen ak seeni njaboot bi léegi bokk na ci yërmande boobu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam baaxee xeet bi mooy xadis ba nga xamante ne moom lañ bëgg toftal ci xadis bu jiitu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di baaxee xeet bi nañu képp koo xamante ne bëgg nga résultat ya xadis bi di waaj a joxe si nii na nga mel santaane ba yonent bi bëgg a joxe képp koo xamante ne bëgg nga góob résultat ba xadis bi di joxe si nii keroog bés pénc tegtal bala yonent bi tegtal sallallahu alayhi wa sallam ne nga meloo ko nii nanga ko melee nii ba tax na qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam man satara musliman satarahu llahu yowma alqiyaama wa qaala aydan laa yasturu abdan abdan fi dunia illa satarahu llahu yowma alqiyaama mbokk yi yal na jàmm yàlla nekk ci yéen ak seeni njaboot bi léegi ñu ngi leen di fàttali ne yi naa ngi ànd ak ñun fii ci Rewmi FM 97.5 ci waxtaanu suba si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ma nga xamante ni moom la yàlla buur bi tabaaraka wa taala yónni ci xeet bi moo ñu bëgg a baaxee képp ko bëgg a góob fii ci dund àdduna résultat ba xadis bi di waxtaane nii fi mu la joxoñ nee na nga mel noonu su boobaa di nga góob résultat ba xadis bi di joxoñ fii waaye képp ku bëgg a góob résultat ba xadis bi di joxoñ keroog bés pénc tegtal bala yonent bi tegtal ne képp ku ko mel dinga nga góob keroog bés pénc résultat ba xadis bi di joxoñ ba tax na yonent boobu sallallahu alayhi wa sallam yàlla xamloo la kenn xamul mi yàlla won la kenn gisul moo ñu baaxee ni ñu man satara musliman satarahu llahu yowma alqiyaama képp ku di suturaal julit fii ci àddina kon xamal ni keroog bés penc yàlla suñu boroom tabaaraka wa taala moo lay suturaal sallallahu alayhi wa moo ñu baaxee xadis bi bu ñu ko waxutoon kenn duñu ko xamal bu ñu ko waxutoon kenn duñu ko wax yan ñu ko yàlla fayal mu daldi waxaat ni laa yastur muslim laa yastur abdun abdan fi dunia illaa satarahu llahu yowm alqiyaama mbokk yi sallallahu alayhi wa sallam moo bëgg jagal pencum jullit bëgg suñu penc bi jàkk anam ju mucc ayib bëgg suñu penc bi nekkee penc bu ñoŋ ba tax na mu ne ñu man satara musliman képp ku suturaal jullit satarahu llahu yowm keroog bés pénc yàlla dina ko suturaal mu daal di ñu baaxee ne ñu laa yasturu abdun abdan amul benn jaam bay suturaal moroomu jaamam fi duniya fii ci këru àddina illaa satarahu llahu yowm lu dut keroog bés yàlla dina ko suturaal mbokk yi ndegem sutura bés moom nga bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam joxoon nañ la la yonent bi sallallahu sallam mu ngi nii mu ngi lay joxoñal résultat ba ngay góobee keroog bés gannaaw bi nga suturaale doomu aadama walla jullit bi fii ci këri àddina yonent bi nee na keroog bis pénc borom bi dalay suturaal yow mi ñuy topp ci réew mi fm 97.5 ci waxtaanu suba si yonent bi sallallahu alayhi wa mu ngi nii di la joxoñal sutura ba ngay sàkku bés pénc sutura soo xamante képp kuy dund bëgg nga yàlla suturaal la ëllëg bés pénc kon ngalawaay del suturaal doomu aadama yi ci seen ayib del suturaal doomu aadama yi ci seen njumte del suturaal doomu aadama seen erreur ya ñu nekkee dee leen di ñaanal yàlla yan na leen yàlla jéggal waaye yow la nga man mooy gannaaw boo ko xamee walla gannaaw boo ko déggee walla gannaaw boo ko yëggee sutura bi nga xamante ne loolu yaa ko mën a doxal seen sa digganteeg ñoom na nga ci bay sa waar bu dee mënoo leen ñaanal yàlla jéggal leen ñaanal yàlla jëlee leen ci loolu ñu nekkee mu wuteeg lañu war a nekkee masalan nga xamal leen safaanu lu baax ñaanal leen munoo ko na noppi màndu ci seeni nekkin nga suturaal leen loolu boo ko defee borom bi dina la suturaal keroog bés pinc nga bañ a jël réseaux sociaux yi di wili pande ayibu nit ñi di xawi seeni sutura jamono boo koy def neex na lool jamono boo ko nekkee dinga am satisfaction dina la neex lool waaye nag hmm, xamal keroog bés pénc bu fekkee ne yàlla suñu boroom xaawi na sa sutura nga daldi ne moo lii li ma ko yóbbee ñu ne la yaa fi doon xaawi sutura doomu aadama yi ci àddina te yàlla dina xaawi sa sutura ba xam dina la neex tontu bi mooy déedéet kon bu dee dangaa bëgg yàlla suturaal la keroog bés pénc yonentu baa ngi ni xalil na la yoon joxoñ nañ na la mu ngi ni joxoñ na fii foo xamante ne nee na képp ku suturaal jullit fii ci àddina keroog bés pinc yàlla dina la suturaal mu teg si nit de amul bépp jaam yàlla buy suturaal moroomu jaamam fii ci àddina lu dul yàlla dina la suturaal keroog bés pinc kon ñu bàyyi xel réseaux sociaux yi wili pande ya xew toppukaay ya nekk ci réseaux sociaux yi nañ leen ko maytu moo xam Facebook la moo xam TikTok la moo xam bépp plateforme yow nekkoo fa di def lenn nekkoo fa di jàngale nekkoo fa di laaye nit ñi biir nekkoo fa di wax dara luy njëriñ nit ñi du xam-xam du lenn lu dul di wili pande di xaawi suturaay nit ñi kon yow déggoo xadis ba yonent bi wax sallallahu alayhi wa sallam xadis bi wallahi bu fekkente ne suñu génération walla suñu jamonoy nitu tey dégg nañ xadis bi ñu gëm ko ñu di ko dund wallahi kenn du wili kenn kenn du jibaane kenn kenn du xaawi suturaay kenn ndegem bëgg nga ko la suturaal fii ci àddina waaye bëgg nga keroog bés pénc ki la suturaal kon nanga nga suturaal doomu aadama yi fii ci àddina nga xamante ne ëllëg bés pénc borom bi tabaaraka wa taala dina la suturaal moo tax yonent bi ne man satara musliman satarahu llahu yowma alqiyaama képp ku suturaal jullit ëllëg bés pinc borom bi dina la suturaal mu teg si ne wa qaala aydan laa yasturu abdun abdan amul benn jaam bay suturaal moromu jaamam fi duniya fi ci àddina nga suturaal ko ci éeréel ya mu nekkee défaut ya mu nekkee njumte yay rëcc ci moom mu di ko def nga di ko si suturaal illaa satarahu llahu yowm al qiyaama suturaal jaam jooju fi ci àddina yonentu bi nee na xamal ni keroog bés pénc la nga médite mooy yàlla suturaal la subhaanahu wa taala kon képp ko bëgg yàlla suturaal la fii ci àddina walla keroog bis pénc na ngay suturaal nit ñi ci ling leen xamal ca safaanu mbaax la ñu nekkee waaye képp koo xamante ne bëgg nga yàlla suturaal la na nga suturaal doomu aadama yi na nga suturaal jullit bi su ko defee borom bi tabaaraka wa taala mu daldi la suturaal kon ndiggéem suturaal doomu aadama muy suturaal sa bopp keroog bés pénc ngel la waaye bu fekkente ni kenn amut ku lay sàng malaan sutura ëllëg bés pénc waaye yonent bi xalil na la yoon mu ngi nii di la joxoñal foo xamante ne boo ci tegee sa tànk nga mën a suturaal sa bopp ci nan na ngay suturaal nit ñi bañ la jël réseaux sociaux yi bañ a la jël TikTok wala Facebook wala plateforme yoo xamante ne ay toppakaa lañ koy tudde nga sore bañ a tàbbi ci béréb yi yuñ leen tuddal ni ngir di wili pande ay bu jàmbur moo xam ci bind la moo xam ci kàddu la moo xam lu ti doon waaye nag yow fexeel nga bañ a bokk ci ñuy xaawi suturaay nit ñi fexeel nga bokk si ñuy suturaal nit ñi su ko defee yàlla suñu borom tabaaraka wa taala mu daldi la sàng malaanoon sutura keroog bés pénc comme naka yonent bi waxee ci xadis bi sallallahu alayhi wa sallam man satara musliman képp ku suturaal jullit satarahu llahu yowma yàlla dina la suturaal dina la muur malaanum sutura keroog bés pénc bés bi nga xamante ne yow ma tubla sarair la ko yàlla tuddee keroog bés penc mooy bés boo xamante ne lépp lu nëbb woon dina feeñ kon lépp lu nëbbu ndegem dinañ ko feeñal keroog bés penc moo bañee yàlla feeñal la ngay nëbb kon day nëbbal nit ñi seeni ayib day suturaal nit ñi ci seen ayib waaw bul di xaawi suturay nit ñi su ko defee yàlla nëbbal la yowit say ayib keroog bés pénc mu daldi di si teg ne laa yasturu abdun abdan amul benn jaam bay sutural moromu jaamam fi duniya fii ci àddina illaa satarahu llahu yowmal qiyaama lu dul yàlla suñu borom tabaraka wa taala dina ko sàng malaanum sutura keroog bés pénc mbokk yi ñu war a joxe xibaar ñu ngi nii taxaw duñu def dara lu dul jébbal leen bërëb bi ñu ñaan yàlla suñu borom tabaraka wa taala an yajcalana min alladina yastamicuuna alqawla fa yattabicuuna ahsana allahuma aminna fi awtaanina waslih aimmatana wa wulaata umuurina allahuma ihfad bilaadana min alfitan maa dahara minha wa maa batan amin ya rabbal alamin baraka allahu lii wa lakum fi alqur'aani alcadiim wa nafacani allahu wa iyaakum bima fihi min alayaati wa zikri alhakiim wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu wa barakaatuhu wa barakaatuhu